aminta donte tey jëmmam taxawu fi bàyyi na fi xel bu baax xolam it mi ngi fi ndax lii nga xam ni moom la Mouhamadou Kaana Diallo nekkoon si moom nekkoon ko ci conseil bi mais nekkoon ko ci kenn ku nekk euh, mbokk yi xam ngeen ni tey jii bés la si bés yi wante yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ni wa tilka al ayaamu nu daawiluha bayna annaas damay indi bés yi teg loo leen mais juyaat loo leen tey jii mu neex suba muy safaan bu fekkee ni loolu am na kenn ku nekk nangu lii nga xam ni yàlla def na ko tey jël kii nga xam ni ku saxoon si suñu xol la mais ku saxoon si jëfam la moom itam soxna Aminta nee na li nga xam ni moom mi ngi si xelam ak si xolam yépp dafay jafe pour mu mën ko wax si benn jotaay bu mel nii mais kenn ku nekk na jàpp ni Amadou Kaane Diallo bi joge woon na ko joge boo xam ni da doon waxanteeg moom mu koy laaj mu koy wax mu nekkoon conseiller surtout conseiller dëgg-dëgg di ko conseiller moom Aminta mais ñun ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ak moom ci conseil économique dëgg-dëgg xam nañu njëriñam xam nañu taxawaayam di ñaan yàlla yan na ko yàlla xaare aljanna bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di wax rek ni ah, soxna Aminata Touré de mën nga bitim réew ànd ak président de la république mais wax nañu ni bu ñu ñëwee ni mu ñu yóbbantee noonu la ko président de la république di Macky Sall yóbbantee moom itam pour mu jottali ko njaalam si ñi nga xam ni ñooy am gi jàmm ñooy mbokk ñooy lépp Amadou kaana Diallo bi nga xam ni yàlla daf ko jël tey C'est vrai que Kana est important pour la communauté de Oussouye qui est là, mais l'institution dans laquelle il, est avec nous depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, euh, en tant que membre de cette institution, nous saurons apporter des témoignages provenant euh, euh, pour, pour sa personne. Nous l'avons connu tout à l'heure au cours de la présentation. Euh, on vous a présenté des conseillers de la région naturelle de Casamance, de Oussouy jusqu'à euh, Velengara. Moi qui vous parle, je suis de Bunkili. Mais il y a dans le groupe les conseillers des autres euh, régions euh, qui sont tous représentés, de Saint-Louis, ils sont tous ici. Bien sûr que la distance entre Dakar et Oussouy a fait que beaucoup n'ont pas pu faire le déplacement. Mais si c'était à, euh, à, à, à, une distance raisonnable, nul doute qu'on aurait un nombre important de conseils ici présents. Mais tout compte fait, nous voulons rendre hommage euh, à notre collègue qui a été une personne très courtoise, humble, très généreuse, dynamique, très entreprenant, qui a été présent à tous les rendez-vous convoqués au niveau de l'institution. Le seul témoignage que je peux porter, c'est suite à la nomination de la présidente Madame Mimi Touré. Euh, elle a voulu, dans la nouvelle dynamique qu'elle veut, imprimer à l'institution, permettre aux conseil des différentes régions, des différentes régions de se retrouver en pôle et travailler en faire en sorte de remonter les informations de l'institution au, niveau de l'institution. Et Kana a été parmi les premières personnes que nous avons contactées pour permettre à ce que ce travail puisse se faire. Nous n'avons malheureusement pas démarré le travail. Il a rendu l'âme. Souhaitons que là où il va soit mieux que là où il vient. Voilà les quelques mots qu'on peut apporter à sa personne. Et nous avons perdu, c'est vrai, mais nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'être là. Inna wa inna Merci.